asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu mbokki internet yu Tawfekh Production ñi ngi nuyu ñëpp di ziar ñëpp di baal àq ñëpp di baalu àq ñëpp di am mbégte ci yéen ak bàyyi xel gi ni bàyyi xel di leen wax gën leen abonné ak Tawfekh Production ndax ñi ngi fii ak euh, yéen di leen jëbbal xibaar yi ci biir réew ak ci bitim réew au niveau national au niveau international partout dans la diaspora euh, où vivent les Sénégalais vous recevrez incha allah toutes les informations yi nga xamante ni euh, mi ngi déroulé au niveau nationale ak fépp foo xamante ni tamit dégg nañ fa ay xeexaw mbokk yi di jaajëfal ci technique bi Mourtala Gaye di ci def liggéey bu mucc ayib ak toute l' équipe technique bi nga xam ne ñoom may accompagner chaque semaine pour décortiquer euh, décortiquer Euh, fair la décryptage de toute l'actualité euh, donc euh, de la semaine ñu koy doore ak li nga xamante ni mbokk yi umpale wu leen ne mooy lu luy coow di luy ay di njàmbat coow laa ne cobbay mbirum Ousmane Sonko Adji Sarr affaire Sweet Beauté bi dem ba tey jii dem presque defray la chronique mu nekk vraiment liy fair couler vraiment tous les encres mu nekk loo xamante ni fës na bu baax a baax fii ci sunu réew bu Sénégal ku nekk xam ne ni Ousmane Sonko barki démb yàggul dañ ko doon wóoluwaat euh, ngir mu dem euh, ginnaaw ba mu nangoo déféré à la convocation ci dem ca euh, jàkkaarloog juge bu huitième cabinet tout le monde ñëpp gis nañ li nga xam moom moo si xew si diggante bi ak blocage yi ci am euh, ma jàpp ne nag aussi foofu dañ fi taxaw def jàngat euh, ci euh, li indi coow li ba déclenché lu jëm ci manifestation yi jëm ci xal wi ko xàllal ne fa lay jaar itinéraire bi nga xam nag moom la ko waa ñii di éléments yi genre force d'ordre yi defar pour mu jaar fa moom mu am taxawaay ne man kat fii laa jaar te il a été à 9h jusqu'à 13h 14h Ousmane Sonko avait du mal à rejoindre lii di le tribunal bu grande instance bu Dakar Ousmane Sonko était dans sa logique en tant que leader politique euh, de définir sa propre trajectoire wax ne man fii laa bëgg a jaar loolu am na ci sañ-sañ il y a aucune loi dans ce pays qui prescrit qui wane ne euh, stipule que ni euh, boo convoqué nit fii nga ko jaar amul fenn peut-être que mën nañ nangul l' autorité préfectorale du point de vue de son statut euh, ci wàllum nag léegi di euh, sécurité de la personne convoquée euh, ak sécurité ñi nga xam ne ñoom ñoom ñooy ànd ak moom wala leneen mu xaalal ko yoon wante comme moom mooy ndey mbile ji Ousmane Sonko ne fii laa bëgg jaar il est dans ses droits mu ne fii laa jaar te loolu dañ ko ko waroon a nangul pour man aussi on ne pouvait pas on pouvait éviter ces émeutes yi nga xam ces ces ces tiraillements affrontements yi nga xam te am na entre Sonko voudrait euh, passer euh, par la voie bi nga xam ne moom moo euh, traversé au niveau de l'université Cheikh Anta bu Dakar l'avenue Cheikh Anta Diop pour dem tribunal am na ci droit nañ ko bàyyi on se rappelle bien la convocation d'Abdoulaye Wade au temps du régime d'Abdou Diouf mais bañ ko convoqué Abdou Diouf la mu wax lan la na ñëw rek fu mu ko neex na jaar fu ko neex na jaar ñoom dañu waroon xaar ba Ousmane Sonko tardé ñëw ñu ne ah ñun ne 9h lañ la heure bi ngay accès te ku nekk xam ne Ousmane Sonko teel naa génn këram 9h05 euh, fekk na génn këram pour rejoindre foofu nañ ko bàyyi mu jaar foofu bu yéexee bu ñëwee 14 bon ñu ne ko ah ñun telle heure lañ la ko waxoon te heure bii nga accès boobaa ñoom peut nañ am prétexte mais pourquoi ñu ne ko force fii ngay jaar parce que Ousmane Sonko avait peur de sa sécurité parce que tamit nit ki euh, bu dee dégg na force ci wowu bay njort ne am na ay nervis yi nga xam taxaw nañ euh, sur ci tunnel yi foofu au niveau de la corniche bon quand même pour mën na taxawee noonu bañ ko euh, pour mën aussi euh, li ñu waroon éviter parce que li ñu doon bañ ne kaaraangeem moo taxoon ñu bokk ko jaarale fee nag li am moo gën a jéggi dayoo pour mën aussi hmm, les autorités administratives surtout l' autorité préfectorale wala ci gouverneur wala keneen ku mën doon di bànqaas yi war nañ di saytu bu baax à chaque fois même bu ñu dee tere yenn yi sax di manifestation yi dañuy gis ne euh, la muy jur mooy gën a doy waar pour man aussi la ngay tere mu jur musiba nga nga autoriser ko encadrer ko nañ jël les éléments yu ñu mujjee indi yooyu yëpp nañ ko nañ ko def au niveau de la voie de l'avenue Lamine Gueye encadrer ko mu def ñu xool et je pensais que loolu du am attroupement parce que qui connaît les patriotes xam ne dëgg-dëgg aussi am na culture boo xamante ni def nañ ko ci ñoom euh, ci am na aussi euh, patriotisme bu ñu doxee pour man aussi loolu war nañ nangal Ousmane Sonko mu jaar fa mu bëgg a jaar l' essentiel mooy que def présence am ci devant le juge euh, du huitième cabinet loolu nag li ci toftal gis nañ ñu trouble à l'ordre public waaw trouble à l'ordre public beneen charge ñu wax ci dans ce dossier bi nga xamante ni nee nañ ñu ngi ko présumé viol lañ koy euh, toppee euh, boo xamante ni am na digganteem ak soxna suñu wax Adji Sarr waaw euh, trouble à l'ordre public quelqu'un qui n'a pas participé à une manifestation quelqu'un qui n'a pas donné euh, quand même faire appel à une manifestation naka nga naka nga koy mën a tege charge trouble à l'ordre public qu'on se dise la vérité donc dans ce cas je me dis que l'appareil judiciaire est même perturbé xamatul sax ban ban ban mécanisme lay doxee dans ce cas Parce que Ousmane Sonko a été finalement envoyé, conduit au niveau de la euh, section de recherche de la gendarmerie de Colobane. Parce que les collègues, motif Bob Linko collègue. est-ce que du doon euh, perplexe du joxe que ne ñi motif bi ñu ko bëggoon a toppee ci wàllum viol bi xëy na les éléments euh, pour prouver ce viol pourraient être compliqués parce que ku ne xam ne l'instruction euh, ci viol elle est illimitée ça demande du temps et puis il y beaucoup de choses yoo xamante ni tout le monde en parle de gauche à droite et que loolu à à droite est-ce que loolu mën na aboutir à vraiment benn benn à ce terme donc de ce fait li ñu ko collé di trouble à l'ordre public amul benn tamit pour man prétexte wala justification boo xam ne kol nañ ko ci quelqu'un qui n'est même pas sorti parce que bu ñu nee trouble à l'ordre public mooy da ngaa génn manifester wala nga jox autorisation manifester kon foofu dans ce cas man je donne euh, tort préfectorale bi nga xam ne moo causé problème parce que autoriser euh, bàyyi ko mu dem nga encadrer ko euh, serait beaucoup plus hmm, plus facile que tey jii nga introduire ko alors que le pire maintenant c'est produit donc loolu pour man aussi dañu wakkat foofu ak ak yelleefu doomu aadama ngeen jot suñu vidéo nag foo leen toll si biir réew mi si bitim réew da ngeen di abonné fii si Tawfekh Production ngeen mën a jot moo leen vidéo boo ko ngir mën a xam li nga xam